you Para vous déclarer. Nous daf leen di wan ni université Thiès dafa feebar bu yàgg boobu ba léegi te doxul te wérul waxoon naa ko bële paase ni leen dafa nekk liir boo xam ne dafa judd rek ñu dagg tànk yi kon balay dox dina yàgg waxoon nañu talaata bële paase ni une semaine lañu may état bi pour mu wan ñu lu ñu mën a dégg mu wax ñu ko wala mu wan ñu lu ñu mën a gis boobaak léegi nag si tey gisuñu dara gisuñu dara mënoo jël ay doomu aadama sànni leen ci àll bi li gën a yomb lañ leen laaj mooy nañu am fu ñu jàngee nañu am fu ñu dëkk na administration bi am ay bureau ñu mën a toog liggéey étudiants yi jàng euh, jotaay bi tey jotaay bii tey dafa nekk jotaay boo xamante ni foog mu mel nii parce que dañu dajale ñi juróomi coordination muy coordination des syndicats pat muy ñaari syndicats coordination des syndicats pair muy ñaari syndicat ak conférence amicale étudiants yi ñuy cinq yoo xamante ni ñun ñoo daje fi tey. xare badar moo ñu fi dajale boo leen ko weddee dinañ ñu di ñu dee waaye du tax ñu bàyyi UT. depuis 2015 intersyndical bu bajale pères yi pats étudiants yi xeex pour université bi taxaw Ils ont na des choses. ko càmm waxee des des ay fait des ils ont judd rek ñu takk suñuy tànk taxaw na ci wax la yam lañ doon wala ñuy Pout école polytechnique te bi université de Thiès Nam mi ngi def résultats ñëpp a dégg ci Sénégal ñëpp a dégg ci aduna bi té waxna bu yagul dara rek né mën nañ dem méngaloog yeen université yu gëna mag ci aduna bi dëgg la waye amul benn accompagnement dañ ñoo bàyyi ak suñu bop état bi nga xamné moy kilifa yi dañoo bàyyi ak suñu bop té kilifa bis bu démé ba amatul cadeau ci kërëm na xolaat bopam wala mu juk dem yoonam lima ci doli moy chantier yoo démarré na depuis 2015 pour plus de 5 milliards mënul paré est-ce que lolu c'est normal.

lu ñu lijjanti mooy képp ku tàggoo seen kër ñëw pour jàng nga mun a jàng li ñu bëgg mooy ku xiif mun a lekk lu ñu bëgg mooy ku feebar mun a faju lu ñu bëgg mooy ku wàcc mun a tëdd nelaw ci xel mu dalboo boo xëyee reprendre say études camarade sunu miir bi nga xamante ni moom la ñu xàmmee université xanaa kër sax dina am clôture am buntu amu ko comme yarax comme caax comme caaxu mbaal mané la boobu ba légui bañu bañu ibé université ba légui fu nek la wadi duggé université bi manam université mom mom mom moom moom mun nga moom moom ñëpp koy ñëpp université bi manam ñepp koy fréquenter ku nek mën na ci kanam mën na ko ci ginaaw mën na ko gauche mën na ko droite wa loolu nga foog mën na and ak sécurité loolu mënul and ak karangé benen buñ ci tek moy si l'État ne fait pas quelque chose d'ici peu de temps nous allons récupérer les salles de classe personnellement et on va les affecter aux étudiants dawuñu si dara ba fu mu yem neex am UFR bu nekk qui na ay représentants am UFR bu nekk ñëw na teew mettre lii ndax lii concerné wul 7 kese wala UFR 16 ou wala ESI wala ENSA mais ñëpp la concerné parce que université Thiès mag mu feebar la foo laal day metti te juddoogul donc li ma ciy teg mooy tey lii rek dañ kaa jiital rek maanaam yan kii la rek teñ bi la yan bi ñëwagul ndax waxoon naa leen ci digg bi ci jëlbeen bi neen xare badar xare badar lañu lañu lañu lañu la ñu diggee duñ ci daw dara suba incha allah dinañ déparé fii ci Thiès dëgmal jam ñaajo lu taxaw suñu kanam ñu dindi ko bañ ñu si dara